إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi koy bàq di ko kañ di ko gërëm ci tawfiq ji mu ngi defal ba ñu dellu si waat ci ren te faaru alquranul karim téere bu màgg bii nga xam ni ñu gëm yàlla amul lu ko gën a sell ci ay wax waaye amul lu ko gën a wér ci ay wax aji gëm yàlla bi su fekkoon te ni xam na dëgg dëgg ni alquran bi def ci xol ku gëm dana tendeefal lu mu man ci téere suñu borom bi waaye dana bànneexu ci waxtu lu nekk ci téere bi xoolal wax joo xam ne mbokk yi dañuy judd ba faatu di ko baam jëlal ala sabil misaan saar mel ni faatu nga xam ni waxuma la da ngay judd di ko baam ba keroog ngay faatu waaye ci bis bi rek ci bis bi rek dañ koy baamu ñaar yoonal naa la saar yoo xam ni mën nga koo baamtu ci bis wax joo xam ni mën nga koo baamtu ci bis ñaar fukki yoon ak nangam te saa boo koy baamtu di ci gën a takk bu bokkul ak ba nga doon yëg su dee yaa ngi teewlu la ngay wax lii la muy wane moom mooy du waxi nit waaye tanzilu min rabbil alamin ñu ngi bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala muy waxam bi sell dañu nga xam ni kalaamullahi la laysa bi maxluuq wa huwa sifatun min sifatillahi subhanahu alquran bi mbindeef waaye waxi suñu boroom la te waxi suñu boroom mooy xam-xamu suñu boroom te xam-xamu suñu boroom melokaan la te melokaan wa te it alfarru dafay topp li nga xamante ni moom mooy al aslu muy bànqaas day topp la nga xamante ni mooy dàpp garab ga kon ñu ngi gërëm suñu boroom li mu développé taw bi dañu dellu si waat ci lan keppaaru alquranul karim suñu borom ñu defaloon nañu taw bi dañu yegg si woon ci saar yi nga xamante ni mooy suuratul kahfi ñu nekkoon ci suuratul kahfi waaye ñu yegg si woon ci laaya ji nga xamante ni moom mooy laayay ñaar fukkeel du noonu wala àdduñu woon ko fukk ak juróom-ñeent bokk kon ñu ngi woon ci laayay fukkeel ak juróom-ñeent tey ñu war a tàmbalee ci laayay ñaar fukkeel xam ngeen ni ñu ngi nekkoon ci nett li asxaabul kahfi muy ñooñu nga xam ni siirat nett li kéemtaan bu rëy la waaye dafa mel ni borom bi subhanahu wa taala dafa mel ni jullit bi dafa ne lépp kéemtaan rek ñu ngi ci qissatu asxaabul kahfi waaye yu ni mel dafa bëri lool ci alquran suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi leeral ci laaya bii nga xam ni ca lañ taxawoon suñu borom ni asxaabul kahfi bokk na ci ne leen yàlla subhaanahu wa taala tëralee woon foofa boo leen gisee wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xooxal ñu ngi xoole wa hum rukuudun te fekk ñu ngay ñaaw loolu dañu wane mooy li ma waxoon ci bi ma taxawoon ci bind bi passé mooy ñoom seen jëmmi bopp borom bi subhanahu wa taala dafa sukk woon seen bët ñuy xoole ba pare di nelaw waxoon naa la ne doomu aadama ji nelaw nelaw yi simple yii su fekkee dafa gëm gëm bu yàgg su ñëwoo ay bëtam dafay amee laas xonk cur daal di ñëwi te nelaw bi soixante douze heures kon kon bu nelawoo ba soixante douze heures fu mu jëm mën naa am lu ëpp lool te bët yi tamit borom bi subhanahu wa taala gëmbalu ko waaye nag koo xippee ndax yooyu dañ leen a gaar te bu nekkoon suñu borom ñu jëndal ko dara du leen gaar ndax ala kulli shay'in qadir waaye nag seen xew bu am solo moo am foofu mooy borom bi subhanahu wa taala nga xam ni ida arada shay'an fa innama yaqulu kun fa yakun su ko soobee ba kundi mbir ma nekk na ko bëggee waaye jëfandiku ko noona sabab yi mu xam ni lii moo tax nangam am suñu borom day jëfandikoo ngir ñun ñu mën cee jàng itixaadul asbaab mooy jël ay sabab ci moomu ñu ko neex nañ ko neexee noonu la koy defee waaye borom mi nga xam ne boo defee lii mu demee ne boo defut lii mu demee ne te suñu borom mën na la waaw loolu da koy defee nii ngir ñun ñu mën cee jàng parce que alquran bi ci ñun la ko wàcc te ñu mën cee jàng suñu borom mën na gëm ne indi te fekk ñu ngi tëdd loolu laa doon misaal ci liggéey suñu borom ne kéem taane yooyu nga xam ne yanaamu bi ihdaa naqlatayhi wa yartaqi bi ihdaa razaaya fa huwa yaqdaa manaazilahu boo xam ne moom suñu borom da koo may te loolu moom rek ngeen ko xamal ci yàlla yi day gën benn bët bi nelawal bii ba bii doyal mu gën bi ci des nelawal bi ci des moo tax benn waxkat mu ni fa huwa yaqdaa manaazilahu moom kat daa yeewu yi nelaw loolu kéem taan suñu borom suñu borom ne dañu xam ne moom ñu dee wéeru ci zaatal yamini ci wetak ndeyjoor wa zaatal shimaali ci wetak càmmoñ am na riwaaya bu ñu jëlee ci Mujaahid mu ni at mu jot ñu wëlbati leen benn yoon wala at mu jot ñu wëlbati leen ñaari yoon ala kulli xaal li ngeen di wëlbati ndax suuf kat matière yi ko composé mooy yi composé doomu aadama moo tax doomu aadama bu faatoo ñu ko defal mu jëm wax suñu service ndax suuf kat mooy récupéré waat ay matière am ñu jàng yaram doomu aadama li ko composé matière yi nga xam ni wala yi nga xam ni moom la doomu aadama composé loolu moo composé suuf moo tax nit mën a seeyaat ci biir suuf si minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa suñu borom bi ne wëmbati biir suuf bañ a lekk seen yaram yi jant bi moom taxee jëfal zaata shimaal tazaawara an tarsiim mbir naaj yi di lekk seen di lakkal seen yaram di lakkal seen yére yi tey nekkul fii fajoo ñu ngi ci place bu yaatu suñu borom ñu ngi leen ci ndeyjoor ak càmm wa kan burum seen xar ba nag baatukum biraa ay fii ñu ngi keneen ay tànkam bopp biraa mooy xaj bu toogee yan ñaari tànk ginnaaw jël tànk kanam yi tàllal loolu yëpp bi day tere jullit toogee noonu waaye day tere day julli ci def wala yabsutu ahadukum biraa'ayhi bisaaq al-kalb yéen yàlla ne bu kenn di julli di tàllal ay téeram comme ni ko xaj bi defee xam nga xaj li ko tàmbalee ci tànk bi yem ba fii mu doog a koy tëral nii ñu bañ la boo julli te lii mooy fekk ñaari téer xëy mooy tege waaye day ku tayal ko xam ne buy julli di ko tàmbalee fii ba fii yëpp ci suuf la koy teg loolu sunna da koy tege kon sunna dafay jàngale ba jàngale maanaam tooginu xaj tàllal tànki xaj tooginu seet bi tooginu gaynde yooyu sunna day tege ak julli di ko def moo tax benn borom xam-xam mu ni islam dafa civilisé ba nga xam ni rab ñi nga xam ne nit ñi dañ leen a sib see def def sharia du bëgg nit ay def dinam di ñu wax te loolu lu am solo la kon baatukum bilaa ay bi wax fii ñu ngi def ni xaj bi def nga xaj moom bu ñëwee si kër borom day xalal ay tànkam joor sa bunti ba suñu borom mu ni lay talaata alayhim boo leen ëpp woon nga tiim leen la wallayta minhum firaara da ngay daw la wallayta minhum firaaran da ngay am bu jox ngay daw wala mu rëcc minhum ru'ba maanaam da ngay seet jëlee ak njàq rek tiitaan bi defe naa kon foofu lañ taxawoo kon laaya bi ñuy tàmbalee tey ñu ngi continuer ci xisab asxaabul kahf ba léegi ci ñetteelu xaaj bi ndax jël nañ ñaari xaaj yi xisab asxaabul kahf kon tey ñu ngi dugg ci ñetteel bi suñu borom mu ni subhaanahu wa taala a'uudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا قالوا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
kon laajee jooju di ñaar fukki ak benn mooy suñu taxawukaay na doy na suñu borom subhanahu wa taala ci ñetteelu xaaj ci ñetti nit asxaabul kër suñu borom ni wa kadalika ni ci nii ngeen gisee nag qissa bi demee wa kadalika nii ñu gisee nettali bi demee ko ci ngeen xam ko mooy asxaabul kër fii fetoo nañ benn par benn ba déggoo ci waxtaan gis ni ñoom ñoo bokk lu ñu jëm bokk lu ñu fas ak ñu bokk lu ñu fas ak lu ñu jëm ak suñu jëm ñoo mën a bokk joor baal jëm borom subhanahu wa taala yéen ci woon leen ñu dem ci al kër daal di fay tàbbi suñu borom dëgëral leen ba ñu sax fa at yan fa sax ñu nekk fa diir ban fa nekk su fekkoon gis na dafa naax saaye kenn xamu ci benn xabaar suñu borom ñëpp ñu ko sax dëgëral ko tey lañ ci wax la seet nañ foofu bu baax su fekkoon suñu borom dafa bàyyi xista ba asxaabul kër di naax saay kenn déggatu leen waaye alquran ñu ñëpp ñu ne ko ñun moom amul lu ñuy wax lu dul sami'na wa ata'na ci lépp lu alquran wax amanna bihi ndax kullu min indi rabbina waaye xam ngeen ni arab yi dañuy wax ne laysa al xabaru kal muayana li mu la nit ñi informé nga dégg ak li ko def tege ñoom ñaar duñ faral di leen xam nga ni segitu léeg-léeg day gën a jot samiat dégg naa fekkee naa da koy gën a jot borom bi subhanahu wa taala mu la ko daalika nit ñi nag baatnaahum lañ leen dekkal maanaam yeewee yeew yi leen yee ñu yeewu li yatasaalu baynahum ngir ñu daal di laajante ci seen biir ñoom ñoom ñu mën a ñëw ci ci kéemtaan ji leen suñu borom defal kon wa kadalika baatnaahum waa asxaabu kër ñoo ko moom ñun am nañ ci wàll waaye wa kadalika aatarna alayhim ñun ñi nekk ci kaw suuf ñoo ko moom te buñ ci yëgtee léegi dinañ xam la tax ñu moom su moom wa kadalika li ci ne baatnaahum lañ leen dekk yee yee li yatasaalu baynahum ngir ñu laajante ci seen biir maanaam nelaw na ñett téeméeri ak ak juróom-ñeent bi ñett téeméeri ak ak juróom-ñeent ci matee borom bi subhaanahu wa taala sëgg leen ñu dal di jóg ñoom bu ñu jógee xool nañ gis ni seen wéyaa ngi fi seen karaw gaa ngi fi yére leen soloon moom leen continué sol ba léegi seen dàll yaa ngi fi xaj baa nga bootee liñ ko daloon ci tuuti nekk te bari bayu leen ma nga fa def te bu ñuy dugg ci xunt mi waxtu jant bi ñu fenk la te bu ngeen di suñu borom di yéen ñuy jub waxtu jant buy sola léegi muskile bi mooy ñun ñun lu si doon def ak ñaata jiw lañ si def moo tax borom bi mu ne xoola mi daal di wax qaa'ilun minhum kenn ci ñoom ni kër la gis waa gaa yi ñaata xam ñaata jiw ngeen am ci biir xunt bi xoola gaa yi ni ñenn ñi tontu ni la bis naa am nañ fi sax nañ fi yow man benn bis aw ba'da yawmin wala génn wàll bi lan moo tax ñu ne benn bis wala genn wàll bi mooy bi ñuy dugg ñu ngi gis jant bi ci jamonoy tànk la toll te bi ñuy yeewu ñu ngi gis jant bi toll ci jamonoy toll kon xalaat yi fii ñu ngi wane ni kat suba la ñu ko dugg génn ngoon a ngi teew waaye nag sikk sàkk bi leen nelaw yi gis na gan mi ngi fi loolu moo tax gars yi ne la gis naa yow man aw baaba yow ni benn bis lañ ci am wala génn wàll bi allahu akbar mbokk yi xoolal ñetti téeméeri at ak juróomi ñeent ku ko tënk di ko nelaw waaw leneen nekk ci diggante bi ci ci déewut de gaa yi déewut de te xam nga ni képp ku déewu di dund dañu aajoo lekk lu doon lekk lu doon naan ndax def nañ koy toog dee kon toog leen ci tëdd bi xanaa ñii ay xeeti mbir la yoo xam ne boo ko xalaatee da nga xam ne suñu borom ala kulli shay'in qadir xista bi am na wujj am na wujj ci biir alquran yu muy niroon kan moo ko teewlu ah Uzayr wax nga ko Uzayr Uzayr xista Uzayr man li ma defee muqaarana di koy def xista Uzayr ak xista asxaabul kahf damay fekk xista Uzayr nga xam ne téeméeri at la mat rek gën te téeméer ak asxaabul kahf ndax suñu borom def am xasibta anna asxaabal kahf rasuulu kaanu ilaatan ajaba est-ce que am nañu téeméer xam nga wala ñu ci gën a téeméer Uzayr benn waay la woon boo xam ni ku baax la jaamu yàlla la am nañu sax ab yonent la am nañu ne déedéet ab jaamu yàlla ba ala kulli xaal jaamu yàlla bu baax la woon mokkaloon tawrat bari ci jamono bi ko gën a ci nit mu am ñeent fukki at benn bis ñu génn di tàmm ay juróom dem ba ci àll bi mu gis ak garab bu sedd mu ne xaaral ma toog ci garab bi seetlu mu toog ci garab bi di téye ba mu yàgg mu wér ci li nga xamante ni moom la yoroon nalit gi ñu naan ci réglé wala déggee nañ pour di ko naan bëtam daal ci ginnaaw tool bi ñu téye ay nit yu dee yàq yaa ngi ko dee bari bari bari bari lool xam ngeen bokk na sax jamono loolu la nit ñi ñu ne la waaw di leen dem rek di faagaatal mooy jéeri bi ñu amee nga xam da ngay romb di gis nit ñi dee rek nii. ñu ngi waaw yàq yu pëlëx yi am naa yàq yi haadil maqbaa di mawti lii moom nu ko yàlla dekkalee loolu nag boo ko woon di sakk sikk sàkk taxuloon mu wax ko déedéet waaye daf koy wax ngir yéene gu mu yéene ci yàlla da bu ko dekkalee day wane kàttanam su war a mën fa amaatahullah yàlla daal di koy faat moom mu faat ko bi ñuy génnee rek ñu ngi am ñeent ci at suñu borom faat ko mu tëdd foofu téeméeri at te bu la ñuy wutale moom asxaabu ko ñoom ñu doon dem la kenn mosul war a def faat fa amaatahullah loolu la yàlla def faat waaye def faat suñu borom dekkal ko léegi bi téeméeri at yi nag suñu borom yagal na ne malaaka malaaka bi ñëw téye ko suñu borom wax malaaka bi ko boo koy dekkal boo koy dekkal li féete kaw jëm ci xel ak ndox lu njëkk fonctionné pour ñuy gis li yàlla def léegi lii mooy njëkk fonctionné li ko tàmbali ci dem yéeg jëm kaw léegi li tëdd si suufam dara baax a bëgg bi loolu am na mu dégg xëy na malaaka la ko léegi xoolal suñu morom ñu ngi nekk mu daal di gis loxo yi commencé man ñi nga xamante ne ñooy doon laa doon di fonctionné di tekki ba am na ci baaraam tànk mu mu yëg ni man doon waat na nekk léegi bi mu ko malaaka ma laaj yow ñaata diir nga fi am nga gis yow man aw baax yow man man de dama yaakaar ne parce que ñoo ci duggoo ko digg bëccëg yi te fi mu toll nii ñuy ndoom mooy bëccëg dama yaakaar ne sama ngelaw yi tey ci bëccëg yi dana doog a yow malaaka ne nabi sa mi ata aam téeméeri at li ko biir léegi indaale woon nga loo naan xam nga kon naa indi woon nga li muy lekk ak li muy naan mooy malet bi mu ne ko xam nga ñu laa ko ànd koo sarabi ka nabi sa sam na tere bu ñu indiwee mu ne ko indi xool ko téeméeri at tey jaa ngi tege lekk bi di ko xaar taw baa ngi fii wàcc ngelaw laa ngi fii ñëw poussière baa ngi fii ñëw poussière ëmm yàq la nga xamante ni mooy lekk suñu sanaani li nga xam ne commencé di yëngal bopp na suñu borom ni ko léegi dégg nga dégg nga parce que lii yow la léegi nag xoolal keneen lan nga ila xinaari léegi bi muy ñëw mbaam nga waroon nga ñëw yéeg ko fii ci garab bi xoolal mbaam bi fekk yàq yàqu digg ginnaaw daa ngi sànnee ko fële yàqu tànkile sànnee ko fële yàqu bopp ba sànnee ko fële bët ba lëkkal ko tànk ba dem mu ne ko nga ila xinaari léegi foofu suñu borom daal di yebal tànk ndeyjoor mu dem fekk tànk tàmmal mu boole ñett tànk yi tànk yi daal di taxaw yàqu dëgg ginnaaw bi yëkkati ko daal di tiim faar yi daal di roob mbaam mi daal di commencé mboq bi daal di ñëw tolloo moom mbaam suñu yaram di ko wet wet di ko wet pièce par pièce ba mbaam muy yéen suñu yaram daal di jël ak ndawal daal di koy teg ci kaw mbaam mi daal di koy roob réex mbaam mi daal di ñëw suñu borom ni ko war a jaxale ko aaya ñu def ñu def la yow nga nekk aaya waaye sa mbaam bi ci ne sax nekk kéemtaan ci yow gis nga ñu gis ne loolu rek ci la wax ne aalamu anna allaha ala kulli shay léegi nag loolu dina firndeel ne nekk te suñu borom moom lépp la man tëllu dara léegi muskile bi def na moom affaire war a dellu ci dëkk bi xaw nga daal di génn dëkk bi ci biir dëkk bi bi muy dem ñeent fukki at la amoon amoon na ci jabar am ci ay doom am ci naan léegi ay doomam màgget nañ ci lu am ci téeméeri at ak ñaar taawam am na cent vingt ans ci ginnaawam te moom mi ngi am quarante ans ba léegi waaw day bàyyi ñu dëkk bi mu dëkkee dugg ci biir dëkk bi xool xool ñu dëkk bi changé na waaye xam naa ne man man am naa fi kër muy waaxu di waaxu di waaxu di waaxu ba ñëw ci kër gi di meloon naa ay doom yi ñu topp di ko yéexoo comme ni ma daan suñu xëcc tey rek li ko doon dal benn seen benn mbindaan la bu nekkoon ci kër gi bu sëy max mbindaan bi daal nii man de mën naa leen a wax ndax Ousseyn na wala du Ousseyn ndax man fekkee woon naa jamono Ousseyn te bokk na ci ñoo xamee woon ne Ousseyn mooy tawraat moo ko gën a mokkal te tawraat suñu raaf na ndax bu ko defar nekk na téere yi su ko indaatee ma xam ne mooy Ousseyn ñaareel bi man ma ne Ousseyn lu mu mën a ñaan yàlla suñu borom nangu man naa ne damaa sëñ wax léegi dama ñaanal yàlla ma xool mu daal di ñaan suñu borom ndaw daal di xool bi mu xëppee gis ni kii mooy Ousseyn kama xamoon soppeeku ndax ñun ñun daal maa ngi ci diggante bi day jàll dugg dara yooyu mu ne tawraat mu daal di bindaat tawraat ba mu mel nam meloon ci la ci la doog a xam ne kon kii mooy Uzayr nit ñi daal di koy dóor a dëgg moo tax lii kéemtaan bii moo tax boo xaar bi di dugg Uzayr mu ci wax ñu ne Uzayr dafa yàlla la wala ayaadu billah léegi nag mu def abi abi ibn abi ibn abi abu xaatim al busti doon wax mu ne wax wadd rasul saaba min qablihi ibnuhu wa min ba'dihi ibnu ibnihi fa huwa akbar wax dañu di ci am ñeent fukki at daaw ñu am cent vingt ans boobu kéemtaan moom ma sami'na bi hada fi abaa'ina al-awwalin illa fi hadihi al-qissa doon am na téeméeri at ak ñaar fukk te moom ñi ko jur ñu ngi am ñeent fukki at doomam day jaay ba mën ko dox day sukkoo te moom muy entraînement di daw moo tax abu abu xaatim am yëpp ci ñun wax wax ba ñun ne tukk rek seen bopp boo xam ne saaba daa dégg jaay ñun xam ne ñu jiitu ko ibnu gu doomam. ba ñu xam ne bii njëkk na koo dégg jaay ci ne ibnu ibnu yi ak sëtam ndax dana sëtam ñu ngi am quatre-vingt-dix ans mu ne tëdd la ak bari te ñoom ñaar ñëpp moom moo leen bokk mag ba pare gën leen a féete ko mu ne yaaraat ibnahu shaykhan yadibbu ala al-asa man mu ngi gis doomam mi ngi yor yàq bi sukkootu te moom mu ngi tëb ko ko sànni sànni ji entraînement ñun su fekkente ne dañu naan ak doomam moom moo nekk jeune bi koy jindi ak di ko dimbali ak di ko yeneen ay bagaasam ndax léegi doom bi mooy paa bi léegi moom mooy doom bi jamono soppeekoo na noonu mu ne bu ko defee doomam am na ñaar téeméeri at ak ñaar te dem am juróom ñeent fukki at te ñoom ñaar moo leen bokk mag ba pare te day jaawoo gud ba pare ëpp leen doole ñu ne lii ba mu ci jeexalee mu ne ah su fekkee ci ni xamoo mu ne maa ngi lay xamal tey te in kuntu laa tadri fa bi-dahri tu'tharu su fekkee ci ni xamoo nag mu ne jàppal naa la ngant ndax ñun ku xamut ñun fir fa coowal coow lu bay loolu kii bi saan suñu borom la noonu la asxaabul kahfi mel kon moo tax ma ne xësta bi dee mooy wujje ci la ñu suuratul baqara léegi asxaabul kahfi daal di dekk ci yeewu bi ñu yeewoo gaa yi ñu ne ñaata fan lañ ci am kii ni benn fan kii ni genn wàllu fan xaalu gaa yi ne rabbukum aalamu bima labistum suñu borom daal dëgg dëgg moo gën a xam gis nga pas-pas boo melawaale dañ koy yeewoo pas-pas boo faatoo dañ koy jekkiwaat loolu saxaaba la wax naan sama yaram bu ngeen ko doon daggat comme ni ñuy fa yaraatee yàq suuf mu ni tur bu ngeen daggee bu demee ci bool bi day yóbbaale li ma xam tur bu ngeen dagg di ko jël yaram bi def ko comme mu ne suuf mu ne jël beneen dàgg dañuy bàyyi li ma xam gars yi bu ñu leen woo yan soxor soxor mooy yàlla subhanahu wa taala ñëpp dañ koy jëloo ci moom moo tax ñun rabbukum a'lam yàlla subhanahu wa taala moo gën a xam dinaa la gis ci ñaata xam ngeen ci léegi ni ñu def mooy te foofu aaya bi al-allaama Naasir Saadi wax na ci wax ci am solo mooy lii dafay tegtal ni kon xam-xam dañ koo war di jëloo ci yàlla subhanahu wa taala bu fekkee xamul wala duñ jéem saa boo ko mënee yàlla mooy ki xam subhanahu wa taala moo tax nit ki warul di jéem di wax ci loo xamante ni xamu ko nga taw seen xam-xam dafa yàlla subhanahu wa taala léegi li muy def mooy daañu ne ñun tam lan ñu ne faba'athu lañ yebal yebal leen ahadakum kenn ci yéen bi wariqikum haadihi ci seen monnaie si ngeen yore weccit si ilal madina ñu jëm ci dëkk ba léegi ñun bu ñu ñëw xam ngeen andale woon lekk andale woon ak naan waaye andale woon ci wecc ba xam ngeen jamono buy dem wecc ba sa poos yéen léegi ñun ñu ngi dëkk tàgg gis nañ ay mandarga yu leen di wan ni tey rek lan di nekk suba ci ngoon bi nekk yeewu am nañ yeneen i mandarga te suñu nokk bi paase tam ni ko imam Shawkaani di nettalee ci Fathul Qadir ci tafsira mooy seen way yi gën a sëkk seen kawar yi gën a sëkk ñu gis ni daal am na ay mbir yu leen di wan ni tey la am mbir yu leen di yàgg na léegi tikk tàkk boobu pour ñu mën ciy dund muus na léegi ñun comme ñun yore nañ leen xel yi ñu ne est ce que ñun dañoo dañoo war a jekki est-ce que ñun dañ koy nelaw nelaw lu ëpp léegi li ñuy def moom dañ jël lekk bi jox ko benn waay ni ko dana da jëndal ñu loolu lekk ci boutique yi sa dëkk parce que continuement ci ginnaaw la kon fabaatu na ngeen yebal ahadakum kenn ci yéen di yalxikum haadiri ci seen wecc bii ilal madina si ñu dem ca madina sa dëkk ba ilal madina alif jeeg laam bi moom ilal kër si ñoo bokk yéen alif jeeg laam bi lil aqd mooy ilal madina al madinatu maarufa mooy dëkk bi ñu xamoon ci fan jógee mu ni fan leen ko ñu xool ayyuha kan ci ñaar ñi ñu ñun ak ñoom azka ñoo gën a sell te gën a baax taaman aw ñam kon moo lay wax ñoom dem nañ ba tikk tàkk te yàgg nañ ci waaye muuloo duñ ko léegi yàlla ci tuuti lekk nan lebal benn waaye ni ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu leen lekk ñu indi lekk booba di lekk bii comparé bu lekk yi ñu ñu xam ne ñu la jël dëkk bi benn lañ suñ ñëwee ñu xam ne ñun yàgg nañ loolu nag ku yor dëgg ko mën waaye foofu am na ay waqataat wax ko ci dëkk bi mooy ayyuha azka taaman lan mooy azka borom ko xam ne azka mooy ku gën a ballile am na ñu ne déedéet azka mooy ku gën a sellale azka mooy ku gën a baaxle waaye firi mi ci gën a dëgër mooy ci gën a baaxle ci gën a baaxle aw ñam al allaamatu saadi rahimahullah ci tafsiram boo ko demee ci aaya ji ak wa yuxillu lahum at-tayyibaat wa yuxarrimu alayhim al-xabaa'is ak yaa ayyuha rusul kulu min at-tayyibaat wa amalu saaliha aaya yi mel noonu yëpp boo ci delloo ci tafsiram bu koy tekki dafa bokk ci li ñu ciy jàngale mooy kon lii day tegtal ni ku gëm yàlla fu ne suñu lekk wër te lekk lekk du baaxul ci yaram taaman azka mooy lekk bu baax muy ci julit la yey rawat na koo xamante ni ngi yooyu moom la xam moo tax ñenn suñu tafsir ñu ne lii day leen ne comme ñii ay doole jiw lañ woon ndax taamu bi ñuy taamu lekk bu baax ak bu sell loolu baabu la bu ko faral di yittewoo ñu ni kon loolu tegtal na bu leen ni kon ñun ay doole góor ndax loolu leen xamoon avant ñu sa diina la kooku benn wax fan ñaareelu wax ni ayyuhum azka taama dafay tekki nit ki saa bu xamee ni lekk gii da koy yor su amee leneen war sa lekk moom dafay lekk lu ko gën a baax ndax ku ñu wër tayyibaat lekk lañ ci tayyibaat yi tayyibaat yi mooy li nga xamante ne lu baax la dañ laa wax gars yi léeg-léeg ndeysaan boo gisee waa joo xam noonu day faral di réglé ginaar di lekk yu demee ne ñu ni bos ñun ñoom lekk bi bos daa yomb ci ñun parce que dafa amul dara saxaaba yi xam ñun ñun ñu ñu doyale yàlla loolu amul sax weeram ñun daanaka ñun ñu ñu lekkee jël ñoom ñoo leen doon lekk yàlla maanaam ñun ñu def balaa jël ñoom ñoo ñu yàpp meloon ci ñoom yàpp soow diw ñoom tàndarma meew yi mooy lekk yu baax yi ñun lan lay tànn lekk yu baax di ko faral moo tax ni gis nga gis nga gis nga yaram ci biir boppam di caaga dama koy def ngir noos dama ko dama koy def ngir damay am tuba bu may jaamoo suñu borom xool nit bu fekkee ci ni wér bi baax a baax xajaaram du ko mën dëkk surtout nag tàngaram dama wax mbokk yi ma ne leen ndax xalaat ngeen ne saxaaba yi dañ doon ñàkk lu ñu lekk ba dese tàngarma kese ak ndox di ko lekk te keroog lañ gën a mën a xale keroog lañ gën a mën a demee seeni ñoo te kenn duñ dina an an ci nekk bon bon état ci santé ñun ñu ngi leen mooy xam-xam saxal na ni yi nga xam ni yaram da koy ñëw di ko soxla ci lekk yi lépp dafa daje ci tàngaam soxna Mario bi mu tolloo ci matu nekk ca ginnaaw dëkk ba saa femme bi nekk fi ah ki ki rey di ñëw fi ku koy dimbali ñëw fi moom rek yàlla kese suñu borom ni ko gis-gis gis gis gis gis gis ay nax la. kenn ci mufassir ni ni bu doon suñu borom daa am leneen loo xam ni gën naa baax tàngal ko jamono joojee loolu la koy waxee ko suñu jigéen bi bu tolloo ci ña ñaari weer ñetti weer muy lekk tàndama tàndama bu baax nag laa di ko lekk lekk bu yem bañu ëppal dana yéppal juróom-ñaar par bis doy na mu di ko lekk fekk moom nekkul ku xiibam nekkul ku yërës gis ni bu amee doom dafay feeñ ci doom ci poids ci dara ci wér gi yaram ay bëtam ci neex xalaat moo la ko wax laajal ñuy dëkk ci wàllu fan. sunna dafa jàngale ni saa bu nit ki wooree ba ngoon jot na dogee tàndarma lu tax ndax doomu aadama li muy soxla ci suukar dafa bari te li koy noonu mu koy soxla par bés dafa daje ci tàndarma ak la nga ca nekk lu mu tuur tuur moo tax Mouhamed Ali Albar docteur bu mag la mi ngi ci Saudiya mu ne soo defee mu ne soo dogee jëlal tàndarma bu wooree lekkal tàndarma parce que li nga naaj koon ba tax ñu commencé poids di beetewu boo ko lekkee la dina di yéegaat parce que yëpp yàlla ba xam ne saa ay njàngaleen ay njàngaleen bi yëfi nit dee yëfi yàlla parce que ndaw lu yàlla yónni la subhanahu wa taala kon gis nga lekk bu baax gis nga kooku lekk alka ko aana léegi te lekk ci kum bi rizq kër yëngu mais na leen indi ay wër parce que maanaam lu ngeen lekk waaye buy dem wal yatalaffaf na yor yatalaffaf na yor bi ñu ne ci daara bi daana wax ne wal yatalaffaf mooy baat bi xajjale alquran diggante xaalis wala xaalisu nga jëkk dama ci def vérifié sax moom la am dégg waaye bi ñëwee si daal loolu dongay daal di wax loolu baat bii wal yatalaffaf ñu ne boo jógee Baqara jëm kër jógee naas jëm kër wal yatalaffaf moo séparé diggante Baqara ak naas moo séparé kaamil wax jooju bu dee wér na bu ñu ko vérifié gis ñu wér ah ma ne li ma jaaxal mooy fa nga tolloo sa digg ba fa nga tolloo sa digg bi mooy la nga làqatu na nga def ndànk moo lay wane gis nga nëbët nëbbati léeg-léeg day baax ci yu bari benn waykat arab ne na in aradta najaaxan aw balagta munan fattin umuraka an xaafin wa mubtaid soo bëggee réussir ci li ngay def jël nëbbati di def ci làq xam ne jaamu yàlla sax am na yoo xam ne làq ko jël gis ni ku ñëpp xam fa nga jël olof yi ne lañ doo léeg-léeg gis ñëpp xam fa nga jël loolu baaxul day yem léeg-léeg di làq ci def xam nga ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ñuy gàddaay jóge Makka jëm Madina ak yonent bi kii daan yàlla li ko yàlla jox nga xam ne moo gën a réer asxaabul kër si fuuf mu war a jëm nii nga xam ne fa la Makka féete fa la Madina féete mu daal di jëm yii yii ñoom ñu teel a jëm mu jàddaat na la jëm ñu teel a mu doog a jëm fii ngir réer ak nax naxaate ah ba gars yi di nga xam ne suñ doon jëm loolu moo lay wan ni kon nit ki du ay mbir yëpp war a fee sax am na yu bari dañ ko war di làq maanaam nit ki bu ñëpp xamee sa yëpp rek lay làq wala yatalaffaf ñu ne ngay làq wala yus'iranna bikum ahad ahada bu kenn ci ñoom daal di yëg ni am na ku génn ci ñoom maanaam daal làqatu bi jubluwaay bi mooy bu kenn ci waa dëkk bi yëg ni am na ku génn dañu ñu def suñu test ba pare xool ba xam ndax ñun yàgg nañ wala yàggul ndax innahum ñoom day in yazharu alaykum suñ leen feeñalee wala suñ leen jitee in yazharu alaykum mooy bu ngeen bu ngeen feeñee bu ngeen jitee yarjumukum mooy dañ leen di jam jam bii nag am na borom xam ne bil qatl am na ñu ne bi shatmi ah wal qad mooy dañ leen di rey am ñu ne déedéet dañ leen di xas di leen taaj ba dootu leen ko jaralat aw wala boog ñu ay duukum fii millatin ñu delloo leen ci pas-pas ba leen doon dal te su amee walam tuflihu du ngeen fexe itam su boobaa abadan ba faaw allah akbar kon boobu pas-pas laa ngi def damay ba tax gis nga pas-pas lu garaaw la gis nga olof ni ñu ko tuddee aqida mooy xas pas boo demoon jënd lu ñu ñaar dërëm ci boutique bi gis nga ne bu ñu sawee gis nga balan kaa fas boo doon xool li ngay def lu mu doon ndax boo ko xëccee ba fas ba xëcc xam ngeen ni fecc moom moo gën a yomb ay ci góor ndax loolu gën a sew moo pas-pas ni ñu sawee moo tax mu tudd aqida te waaye boo ko boo ko xëccee ba fas pour génn waat ko lay def ndax sama gars yi da ngay gis ñoo xam ne alhamdulilah fekk nañ ñu bari ñu jàppoon ñu ci sunna si waaye ba léegi bagaas yi day def ñu ma wax am na lool day am ñu bëri de da ko gën a gaaw gis alhamdulilah léegi dum nga wax tey am sunna si wal jamaa léegi nga xuraafaat yëpp wax wala ci sa seen yéeg yëpp waaye rek ne da ngeen jékki-jékki rek sa waay am loolu ci ne parce que dafa dafa dafa gaaw dafa gaaw am na benn sayëq ci jamono jii bu ñu wax Abu Ishaq al-Hawaazini hafidahullah wa raa ci borom xam-xam yi gën a mag tey ci àddina bi ci xam-xam xadiis la bokk nit ñi biñ koy jotee moom parce que daa defee sa tas dafa nangam dafa tontu tontu bu ma neex moo tax ma di ko nekk li ñuy tontu doy man fi ñu ngi wax loolu waaye man duma ci tontu li may wax rek mooy alhamdulilah ñi koy wax ñëpp ku ne xam nga foo jaar doo dugg ci salafiya man nag damaa jundeeku rek xam salafiya maa ngi sant yàlla te wax dëgg ñu mu amee solo tontu bu bu bu dal la sax mooy ñi wax la loolu su ne am nga koo jaar seen tey si doo gën a ci salafiya mu ne lan la yàlla damaa bindee ba am salafiya alhamdulilah mosu wax jaar fenn loolu tawfiq yàlla dëgg la dëgg sax kon gars yi ñu ngi ci ba léegi seen pas-pas innahum in yazharu alaykum mooy ñoom bu ngeen bu ngeen gisee yarjumukum dañ leen di jam aw yu'idukum fii millatihim wala ñu delloo leen ci seen diine dañ nekkoon muy feebar ga te wala tuslihu gis nga lan li ta'bid ñu jàngale ko dañuy wax lan li ta'bid mooy ba xaw bokkut ak lam di xarfu jazm ah mu ni walan tuslihu mooy di ngeen fexe mukk abadan ba faaw parce que bu ngeen wàccee yoon wi da ngeen di aw kon ñoom ba léegi seen pas-pas jaral na leen lu nekk moo tax gis nga pas-pas comme ni ma ko waxee lu jar a sonn la nag lu jar a sonn la moo tax aqida kenn du ko jàng sa ko aqida sëriñ dégg aqida moo ne la yéen li nga xam ne nit ki bu dajee boroomam subhanahu wa taala mu set la ko loolu mooy tax ñu def mbokk yi maa xam ngeen suñu borom dafa yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim àllaaxira buñ fa dajee sa alal bi di la jëriñ sa doom di la jëriñ say mbokk saw askan di la jëriñ lenn rekk lay jëriñ mooy ñu vérifier ko xol confirmer ko gis ni yow ñii kat sa aqida set mbokk yi lii moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam par mu def ko saxaaba yi kan moo tax a jàngale yonent bi alayhi salaam kan moo ko gën a def ay wax kan moo ko gën a mën a leeral kan moo gën a xóot te neex am xel ci saxaaba yi fukki at ak ñett ñu ngi leen jàngal sax sax mu doog a ñor ñor tàbbi ñun nag dañuy gësam léegi tàbbal xam nga ñor tàbbi gësam gis tàbbal gësam tàbbal bokkul ku ñor tàbbi moom for nekk waaye gësam tàbbi la nga gis lu xaay maal yàqaat moo tax suñu pas-pas yi def léeg-léeg nga gis koo xam ne ndeysaan day mer rek wax wax yoo xam ne teg xam nga xam ne kii dafiy def na def da ngay jaaxle ah say mbokk jaaxle parce que yaa ngi feebar bay kaddi kaddi ñu ne lañ ko yóbbu ci bàyyi diin te xam nañ ni bàyyi diin ndam ndam bu xaaba la ah nga gis borom pas-pas bu set bi nga ne ah comme moo gis man dem rek man damaa ñàkk ko def kon pas-pas bi set am na suñu mbokk moo xam ni kenn ci masaay yi ñu doon jàngal moo ko doon nit yi nee na waxuma la sax ñu yow dañu moom da doon ñaan yàlla buy faat lépp a jàpp ñu ko ci lu muy faat ndijaayam ñu ñu ñu ñu sa leen dund du ma xëy daje sama borom subhanahu wa taala bi jàppar la koo xam def ko ci bidaa ñu tëj buntam ba ndijaayam ñoom ñu ñibbee dee kooku yëpp bàyyi nga tax sax am na ñoo xam ne tey jii seen pas-pas ñun buñ doon dee yamutuuna ala aqidatihim saxiix faw ñu jàng aqida moom gis nga saa boo dee ba aqida yi set loo mel dañ koy attan foo jëm dañ koy yegg loo yaakaar dañ ciy jot te it nag da ngay nekk koo xamante ni dund bu nekk day dund al allaamatu bi taymiya rahimahullah bi mu nekkee ci biir kasa bi ay ndongoom bind ko benn lettre di ko masawu coono ndax kasa bi wax wax ay mu ñu di leen ko nuyu rek tey bu ñu jàppoon kenn di sëriñ suñuy jàngal ba ngi bokk yi mel ni sa waay àllaaxira taxaw fekk loolu loolu du dara loolu du dara li war a mën a nekk la tey nag képp pour nga aw doo ko seen danga naa sam daaw des na mu bindaat leen beneen leetar bi leen tontu mu ngi leen na ngeen yëg ni seen sëriñ bi ngeen xamoon muy jibli tey bi yëg li jot a jàll ci dundam mës ta yëg guddi yoo xam ni neexee na ci moom comme guddi yi nekk ci kasa bi ñu neexee xanaa yëgu leen ni liy neexal dundub jullit nekkul ci biti waaye ci biir xolam lay nekk loolu mooy aqida kenn ci ñoom nee na su su buur yi xamoon ñun waa aqida bu fekk li ñuy nootee ni ñuy nootee mu ne kon buur yi danañ bàyyi seen jàngunaay ñëw xeex ak ñun pour li ñu nekk ñun ñu jox leen ko ñoom ñu jox ñu ñëw ndax li ñuy dund ci biir xol la kenn ci ñoom daa dund ba sëndal li mu yëg ci bànneex ak pas-pas bu set xam nga nit léeg-léeg kontaan da koy wax loo wax ji léeg-léeg nit mer wax loo ko wax ji waaye ji mu ne bu fekkee lii ma yëg ci bànneexu pas-pas mën na waa àjjana yëg kon de àjjana neex mbokk yi est-ce que léegi leen waa dinañ wax kii fan la toll ak maam yaxam yi nga xam ni moom sa waay ah ñoo ne kos ñu jub moom sa mbir a dëkkee ba am ngay réeree mu ngir lu mu paasee sax dem fii mu am obaaju di dem dem ne li ci xolam ak la waa àjjana di ko li mu yëg war na kon mbokk su dee li may yëg loolu la waa àjjana di yëg kon àjjana neex na dootu gën a kon am na lu muy yëg loo xam ne moom amul luñ ko mën a gam-gam ñu jënd ko àjjana moo tax aqida benn borom xam-xam dafa tànn benn te tuddee ko al aqidatu awwalan law kaanu ya'lamuun parce que moo war a jiitu lépp su doon ñun xam nañ kon ñu ngi noonu ah léegi borom bi subhanahu wa taala dañu ko daal ko niki noonu nag aatarna alayhim tamit fakkastal ñoo nit ñi ah atar mooy fakkas ñu atara ci arab mooy fakkastal maanaam fakkastal ba dagg dara nit ki fakkastal ci xeer rek xool dëkkate xeer bi daa am lu nekkoon ca suufam kon ah atarna alayhim mooy suñu borom daal di feeñal daal ñu sëpp gis nit ne waaye ñu yaalamu ngir ñu xam ni anna waada allahi digab yàlla bi xaqul dëgg la suñu borom bu mu digee dëgg la wa anna saata allaaxira de laa rayba fiiha sikk sàkk amu ci day ñëw alxaadar ibn kathir ak ñeneen ci borom xam-xam yi ñu ni buur boobu mu faatu muy di xiyaamu ci ginnaawam dafa am ñeneen yeneen beneen buur bu fi ñëw bu gëm yàq ne que suñu borom ñi mu faatoon am na lu mu koy prépareel ñi mu faatoon ñuy nelaw am na lu muy préparé mooy nit ñi di werante ci seen biir ñii ni àllaaxira dina am ñii ni àllaaxira du am ñii ni on koy àllaaxira dina am waaye yàlla ruuy yi kese lay dekkal dekkal déglu kon suñu borom bu feeñalee asxaabul kër bi ñu xam ni ñii kat dañ doon nelaw yëpp ci weer comme que dee déppoot nañ tey jëmm yi ànd ak roo yi comme ni ñu la wax ci àllaaxira misaal naa nii moo tax mu ne li yaalamu ngir ñu xam ne anna waada allahi digab yàlla bi xaqu dëgg la wa anna saata àllaaxira nag laa rayba fiiha maanaam aatiya laa rayba fiiha day dikk sikk sàkk amu ci te wax dëgg nag amantu anna al axira laa budda yawman aatiya kullu sarairi baadiya ah kullu lxalaaiq xaadira man de gëm naa ne àllaaxira sikk sàkk néew ci day ñëw te yëpp la yàlla yi bindee yëpp a ci kon àllaaxira dana ñëw mbokk yi kuy bàyyi xam ne àllaaxira ñu ngi ñëw nee naa ñun dañuy faral di sonn ci loo xam ni bu ñuy dee duñ ko yóbbaale. kuy sonn na nga sonn ci loo xam ni bis booy faatu dana xoyof bari bu xoyof nga mën koo yóbbaale waaye ñun yëpp ñu ñuy sonn soo dee fi nga koy bàyyi sacrifice ak coono nag ku koy def da nga koy def ci loo xam ni boo duggee bàmmeel moom da def ànd ak yow boo demee àllaaxira mu topp sa gannaaw su borom ne is jamono bi nga xam ne yatanaaza'uuna baynahum amrahum ñu ngi werante ci seen biir nag léegi léegi werante bi ndékk asxaabul kahfi la ci seen biir ndax yow man lañ kenn aw baada yow werante ak ñaareel gi nag waa dëkk bi ñoo koy def ci nan la ñuy def ci waa asxaabul kahfi diggante bi am na lu fi xew li fi xew mooy waa ji dafa jënd ñëw ci dëkk bi ñu ñëwee ci dëkk bi ñu ñëw ci dëkk bi xool xool affaire bi sànq xam nga nit téeméer daal daa yàgg nit téeméer moom daanaka taxatu mbay bi ñoom dañ ciy tëb garabu xëy bi dina ci digg bi daaw la gën a saxaat ah ak yu bare bare yoo xamante ni amul léegi moom gis nañ mandarga yi koy wax ni fii mooy dëkk bi waaye gisuma fi lu ma fi xamoon wala wax tam naan aral xayma hiya al xayma wa ara nisaa al xayma gayra nisaaiha xam naa ni fii ma nekk moom mbaaw yi may fii mooy dëkk bi waaye ñii fi dëkk moom bokku ñu ñoo bàyyi moom waaye moom li ko jaaxal mooy li mu def ci xelam moom mooy man fii démb laa mujj ci ngox kon lan moo ko war a xamal yow mu ne man démb ci ngoon laa fi mujj man fii dara woon tey sax ci diggante nee na muy jox ci kanax kanax dama yàgg mu taxaw mu ne man dama yaakaar ne damaa dof wala jinne jàpp ma fii ma dëkk dañuy mu ngi man dafu ma man nii maa gën a xam sama bopp daf ñetti jinne jàpp ma te wér na ma ne fii démb ci ngoon laa moom dama koy ñu jàpp ci démb ci ngoon laa fi moom ñaari baat yu mu dem rek ñetti baat taxaw évité la koy tax a avancé mooy démb ci moom dafay tourné ñett ci yoon saa bu ne day dëgg tourné muy déedéet man démb may tourné parce que man fii démb ci ngoon laa fi mujj man xam ne naa suñ buntu kër man damaa dem ba suñ buntu kër muy dem di dem di dem di kënëf kënëf ñu xool ba mu yàgg mu ne man maa ngi bëgg a fàtt naa def la ma gars yi waxoon mu génne leen ñu ci poosam dugg ci benn bërëb bi jox ko ni ko jaay ma gis nga xeeti bi nga xam nga ne rënd la xeeti fiftin ak benn bërëb yi amoon ci ci ne sunu maam ya benn waaye bu ko indi woon rek xam nga tamit ak melokaan bi ñett téeméeri at xam ngeen ñett téeméeri at ci ginnaaw bi Sénégal nit ñi nan meloon seen forme ak nit tey bokkuñ lan doon solo li ñuy sol tey bokkuñ ñu ngi ci jox ko borom bëccëg di ko jaay borom bëccëg di xool ndax yow kii moom kanaan dafa dafa war a ko dal daal di koy laaj bi ñu ko laajee ay laaj laaj yi ko man démb ci ngeen laaj di jóge ci dëkk bi te buur bi fi nekkoon ñu ngi doon Dëkkiyaanoos rek kenn moom xam ni tànkam moom xam saay ba jaaxaan ci suuf xam nga Dëkkiyaanoos moom nit ci rek également la paase woon léegi nag moom ñu daan tëj palaasam rek daal di jàpp waa ji saax saax rek ñu ñu ñu ñu topp ñu wër dëkk bi ñu ngi jàpp ni kii dafa dof kii dafa nangal kii jinne da koo jàpp kenn ku ci nekk day indi say pexe léegi benn waay bu muus mu ne déet nañ koy yóbbu ci biir yóbbu ko ci buur fekk beneen buur fal la boo xam ne moom jullit la sax xam nañ bi mu ñëwee ci buur buur daal di koy dalal dal tey laaj ko bi mu ko laajee waa ji expliqué man démb ci boom laa moom toujours bi laay démb ci kon laa fi jógee démb ci boom laa fi jógee te dëkk yàlla su moo nekkoon buur bi ñun fii la ñu nekkoon ci xunti bi wax a wax a wax ba yeggal lu ñu ne asxaabul kër nit ki nit ñi su fi fi ñu bokk ñoom dañ leen dégg ni am na ñu ñu tuddee asxaabul kër benn nag waaye xamuñ fi ñu nekk ci suuf ñu nekk ñu ci suufaree ci ginnaaw dëkk bi buur bi daal ne ah kon léegi ñuy dem mooy nañ ànd suñ demee nga wan ni sa moom fekk gaa yoon nga toog di ko xaar ñaari waral ñëw na foofu benn bi dañu dañoo ànd nag moom ba dugg ci biir continuer buur beeg gaa yi nuyonte asxaabul kër fii ba am ba buur bi solal leen sax ay maxana yu or teral leen bañ paree ñoom ñu dal li suñu borom ëllëg di saaxal am na yeneen waaye boo xam dañ ne déedéet waa ji dafa ñëw te boobu mooy bi gën a dëgër waa ji dafa ñëw ba yegg si ci bunt bi mu ne leen léegi comme ñoom bi ma fiy jóge waxuma leen damay ànd ak ay taxaw leen leen xaar gaa yi taxaw xaar ko mu dugg ci biir ni leen ah am na lu xew kat dem naa ci dëkk bi léegi léegi lii xew na ba waa dëkk bi taxaw nañ gaa yi daal di tiit ñu ne ah ñun de suñ seetloo gan doon tàmbali ba tax ñuy làqatu ñii buñ dikkee gis kéemaan jii danañu gis loo suñu bopp loolu yàlla lay faat ñu ñuy far dee ak benn yoon ñu daal di dee ci saa gaa yi taxaw xaar xaar xaar xaar xaar gisuñ dara kenn lu waaw te yéen ñu yéen di fekk leen gisuñ dara foofu moom la seen allah kay fanam jaaree sa jeex kon loolu kéemtaan suñu borom bi màgg la boo xam ne nit ki dafay yëg ni yàlla subhanahu wa taala laa yaqaw jésoku shay'un fil ard wala fis sama moo tax naa si buntu ñaan ki am soxla soxla si lu yéene ci bopp boppam bu fekk daa xam ne ko yàlla subhanahu wa taala yàlla moom su soxla si yow yow yëg ak man ñu ngi koy wax waaye yàlla moom dara léegi suñu subhanahu wa taala léegi loolu bi mu amee suñu borom mu ni ah is dama la ba nga xam ne yatanaaza'uuna baynahum gaa yi nag ñu ngi ñëw taxaw ba ñëw fekk gaa yi deeyaat léegi yatanaaza'uuna baynahum ñu werante ci seen biir léegi nu ñuy def gaa yi nag léegi comme déedéet mais comme beneen werante bi ñëwaat yatanaaza'uuna waaye nag baata tanaaza'u ci boppam moo lay wan ni lii ñu def sa dox xam nga tanaaza'u mooy xëccoo te tanaaza'u ci boppam islam da koo tere wala tanaaza'u fa tafsalu kon moo lay wan ni dina ci aayam ci ci kalima bii képp ñii wax naan jëf jii ma nar a tudd ñi ko defoon day borom xam-xam ñu naan duñ borom xam-xam ya moo tax alquran boo defee ndànk rek nga seen ngeefal fii ci rek teel wallahi yàlla ngay defal ci ay taw ci loolu loo yéew gis nga lii rek moo lay wax ne ña borom wax baaxul ndax dañoo ko ci borom ñu gëm yàlla buñ ko def ko ñu ko tere ndax buñ ko defee def nañ leen ko gën saa wax bu ci génn wala te naa sax ay xale wala nga yàq ñu ngi xëccoo fa qaala bnu alayhim bunyaana gars yi ñu ne nañu tabax nañ leen miire maanaam comme buntu buntu bi nañ ko baare miire leen bu ko defee mu nekk place boo xam kenn du fa dugg ci mu jeex xalaat boobu sax moo gën a baax moom qaala mu wax alladina ah ñu ne rabbuhum seen suñu borom wala seen borom aalam bi moo gën a xam seeni biir ñun daal li ñu war mooy comme deene nañ leen miire mu wër mu nekk seeni armel bu ko defee kenn du ko mën a dugg di leen laal ñu seeyee foofa rabbuhum aalam bi yàlla moo xam ëllëg li mu ci ñoom amaana da leen dekkalaat bi jëf ci loolu moo ko xam amaana fii ba allah sa suñu borom moo qaala suñu borom ne qaala mu wax alladina galabu gaa yi nga xam dañoo nag ala amrihim ci seen mbir waxoon naa leen ci barke yële peese paase wal galibuuna humul aktaruuna walakin aktara annaasi laa yaqiluuna laa yaalamuuna laa yafqahuuna ñu gën a nag mooy borom doole yi la nag tamit gan na dinañ jàpp ko alayhim ci ñoom masjidan def ko jàpp dañ ko sukk ñu nekk jàpp xalaat bii fikratun qabixatun iblisiyatun gaa yi yéemu nañ ci ñoom léegi au lieu que ñu tabax ko mu nekk benn place boo xam ne dañ naan fii ñu nekkoon gaa yi ne déedéet nañ ko sukk ñu nekk jàpp qaala alladina galabu ala amrihim ñu ne lanattaxidanna alayhim masjida mooy nañ def seen place bi mu nekk jàkka ngir di ko jaamoo yàlla subhanahu wa taala ngir yéewu ci dañu la fikratun shaniatun qabixatun iblisiyatun muharramatun fikra la boo xam ne bu bon la bu sibu la bu salte la bu iblis di yënkeewal doomu aadama yi la te sharia da koy tere bala maa ñëw ci loolu mani la maanaam gars yi bu nga xamante ni ñoom ñoo leen di rëccuwaat fekk ñoom ñoo fa nekkoon faatu na léegi mbir moom jeex na yéemu nañ ci xam ne ni lii kéemtaan suñu borom la waaye doomu aadama ci boppam léeg-léeg li mu yéemu da koy bëgg a diiral ci mbakke ak jaamu yàlla wala yàlla subhanahu gis nga xalaat bii lu ak lu ko jiitu ci la nit ñi jàppee saa bu nu gisee palaasu waa ju baax faatu nañ ko soppi def ko jàkk yonent bi alayhi salaatu wa salaam balaa muy faatu bokk na ci ndénkaane yi mujjee def yal na yàlla rëbb yi mujjee dina xaaraay ndax ñoom kat dañoo jàpp suduura anbiyaihim wa saalihihim masaajid dañoo jàpp seeni bàmmeeli yonent yi ak nit ñu baax ne def ko ay jàkka ñun ko def diglu liñ ci def ulaika shirarul xalqi inda allah ñoo ñoo gën a bon ci mbindeefi yàlla yi ci kaw suuf subhaana rabbina al aala li may wax mi ngi ci Buxaari yi Ummu Salama nee na yonent ma de gis naa ci fële Éthiopie dañ fa gàddaaree ay jàkka yoo xam ne saa day créé ay ay image yu yeneen daal di koy suul ay nit mu ne ko ñoom day saa bu amee yonent bu faatu wala waa ju baax dañu koy tabaxal ab armeel daal di def jàkka foofa mu ne ko ñooñu ñoo gën a bon ci mbindeef yàlla yi mbokk yi ndax kenn ci ñun bëgg naa bokk ci ñu gën a bon ci mbindeef yàlla wala boobu balaa dina ci bokk yonent mu jeex alayhi salaam Abu Muusa al Ashari yi ñuy faat dañ ne leen fexe na sama bàmmeel bu ko kenn jal bu ko kenn tabax te bu ko kenn def jàkk ñu ko fekkee ni ko mu lax dañ ci mën a jéggi ci yonente bi dara mu ne waawaw da koy tere tere xaram ay sëpp yu bare bare bare loolu ci yàlla nee na bu leen julli jàkkaarloo ak armel bu leen julli ci ay armel bu leen ca jont ñu lay wax yëpp ñu ngi saa saa xay waxtu yooyu yëpp nga xamante ko tënk ni waaye lu gudd la ala kulli xaal barab boo xam ni jàkkaar fa nekkoon dafa xaraam armel fekk si ko te saa bu ko fekk tey danga war a sulli tànn ji suuli feneen ak ku mën a doon jàkka su fekkee moo fekk ci armel bi jàkka ja lañu war a tax déplacé li moo wax ibne abdulhaadi moo wax ibne alqayim moo wax ibne taymiya moo wax alxaafid ibne xajar aimmat ahli sunnati wal jamaa même sax ibne taymiya nee na dëppoo nañ ci bii dëpp borom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu jàkka joo xam ne dafa amul armel dajalu nit ci jullee xilaaf bari na ci nag xilaaf bari na ci loolu dégg leen ko bu baax xilaaf bari na ci waaye xilaaf ba li muy arraajex amul jot di indi xilaaf ba ndax waxtu bi jeex na waaye xilaaf bu ci amee li muy arraajex dellul ci majmuatul fatawa ibn taymiya dellul ci iqtidaa siraatul mustaqim fi muxaalafat ashaabil jahiim dellul ci taxdiiru saajid bi ittixaadu qubuuri masaajid sunnaatul mu'taqal dama ne ay téere yu bëri yoo xam ne ay tegtal yu doon ci def ñëw ci di firnde lii wax man armeel yi moom waxuma loolu nañ dem sax ci mu yore ci parce que bu ñu xëjee kalaate bu yore sa xalam dañuy kalaate yi ci def am naa nag benn waaye mu ne kon lu tax am na lu yore ci sa xalam daal di nekk ci biir jàkk ci def naa loolu subaan la mu gën jiddan laaj la bu am solo léegi xam nga ñàkk xam taarix ak ñàkk xam mbir yi fu mu tàmbalee dafay waral ngay fakkas tamit toujours moo tax Omar ibn Xattaab mu ne l'islam ji commencé naa cee tiit ñu ne ko lu tax mu ne képp ku xamul cerdo ba képp ku xamul cerdo ba dundu l'islam ji pire da lay jafe wax na dëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàkkaam dafa nekkoon nii semence bii ci ginnaawam moo nekkoon nekk aati taxawal jàkkaam loolu tax ngay dégg ñu lan la su yonent yàlla bi masaana dëkk bi atikaaf te Aïcha bis baax dugg ci jàkka ji yonent bi day jël dox bu sëpp ko ci fenêtre bi Aïcha di ko xëñal kawaram loolu bokk na ci tegtal yi ñu doon ñu doon sukkandiku boo waree kon jigéen bu gisee baax dugg jàkk ndax lu tax Aïcha dugg si ak peñe kii dëkk kii loolu ñu méttee lu tax dugg si la ko doon peñe dugg si dara la nga ne ma lu tax yonent bi génn mooy lu tax génn mooy ku sax sax doo génn kon kii am na lu ko teree génn kon kii lu ko teree dugg la ko teree dugg mooy xamoon nañu jigéen bu gisee baax dugg jàkk loolu lañ leen gis nga liggéey dëgg dafa am nañu wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na moo wax ci làmmiñam nii ak yeneen te fu mu faatu fa lañ koy suul fu mu faatu fa lañ koy suul kenn du ko def laaj yeneen ñi faatu nekk Aïcha bi faatoo nekk Aïcha ñu suul ko ci biir nekk Aïcha Aïcha jël benn bi du xaaj néeg bi ci digg bi armel baa nga lële néeg baa ngi nii xam naa ne Aïcha ko jëlee gëm yàlla amul de sa borom kër di bokk moom tëdd ci benn lal ak yonent bi ñun mel neex a xool neex a bëgg neex a dëkkal sallallahu alayka ya rasulallah mu sant fii ah isa di nelaw fii ci bàmmeel bi Aysa di nelaw ci lal bi kooku dëkk ci biir néeg bi iman mën naa def loo nit ñëpp aw bakar faatu ñëw suul ko fa Omar faatu ñu suul ko fa Aïcha nee na bi ñu suulee yonent bi su may ziyaara même bu ma soobee abbaay damay ñëw ziyaara toog parce que sama biir néeg laa nekk bi ñu suulee aw bakar su may ziyaara damay sol abbaay loolu amul problème bëri sax ñu suul ndax sama biir néeg laa nekk waaye bi ñu suulee Omar ibn al-Khattab ñu ne su may ziyaara damay dem ni kuy génn nii dem ndax dama rusul Omar bi ñuy dund comme rus naa ko fii mu tëdd ci bàmmeel jamonoy soppeeku aw ba ko jël xilaafa ñaari at dem Omar ibn Xattaab jël ñaar fukki at ak nangam dem Asmaan jël ci jamonoy Asmaan ak jamonoy Omar bu ci nekk jàkka ji fat na ba mu yokk ko waaye ñun ñëpp gënoon nañ ne armeel bi weesu dugg ci biir jàkka ji moo ko dañ koy yokkee nday dal sàmm kanam gannaaw waaye dañu yokkee ko ci biir jamono jooju góor day wax ne képp ku këram dendee jàkka ji indi sa kër ñu jaay ko jàkka ji boo nangoo ñu jël ko boo nangoo ñu jël la dëkk par force nga dem sa yoon te li ngay fàttali xaarisa tax yal na yàlla fay ko yëg yéen ci biir gàddaay say ñëw Madina dafa mel ne dañuy wax xaarisa tax xaarisa tax mu am fii kër am fee kër am fee kër jege jàkka ji yéen tamit takkee soxna mu ne ko jëlal kii bu takkee soxna mu ne ko jëlal kii ba yàgg ma ne ko gis nga jëlal kii bi si boppam sax mu ne bëgg a tàpp jëlal lépp ma dem fële mu daal di koy jox kër yooyu yëpp daal dem fële dem fële léegi ci jamono yooyu ibnu Abdul Malik déglu bu baax Walid ibnu Abdul Malik Abubakar faatu na Omar faatu na Osman faatu na Ali faatu na kibaaru saxaaba faatu nañ dama ni ay doomi saxaaba yu mbakkaar ci ñoo fi def ak taabi yi li ëpp soppeeku buy am ñoo fekkee woon cosaan duñ ko fekkee Walid ibnu Abdul Malik bind Omar ibnu Abdul Aziz lettre ni ko yokk nañ jàkka ji lay doon sàngal kanam gannaaw amul fenn ko def su dul ko bi armel bi nekk kon bu ñu ko ci yokku jàkk bi day continuer xam kon nag nañ dugal arme bi ci biir jàkk après ñu defar ko ba kenn du dul di jàkkaarloo Muhammad ibn Abdul Aziz woo fuqahaa'u Madina borom xam-xam yi ñu leen kat am na mbir mu am dañ maa bind benn leetar nee nañ naa def nangam ak nangam ak nangam borom xam-xam yëpp a bañ ba tëdd ci naaj ñu ko doon ñëpp du ci daal dégg ñu ne ko yéen ñu dafa bëri xale bi dafa xaraam bàmmeel na ci biir jàkk waaye nag bu leen fàtte ne qaala alladina galadu ala amrihim bunul ma'muun léegi yooyu def ci leen jàkk yi marché bi ñu mel war mu ci kii ci loolu ci ëpp xam-xam xam ñoo ko def dama ne yonent bi ñëwaat sallallahu alayhi wa sallam jàkkal ji di Madina laa wax ni mel dana ko dindi maa la wax loolu da koy dindi bala maa ñëw rek dañu leen suñu yaay naan damay ziyaar borom bari yëre boo xam ne yonent bi dee toon bari yëre yëre ko xala xelaa wax wallaay xam nga ñu ko gën a jëg ñu dee ci woon bari yëre yëre ko xala xelaa wax kan sëmës dana dindi ci jàkk parce que nit da ko doon ko def moom day ñëw bàyyi ko bee comme moom jëkkër bi weddi na lam doon wax te léegi am yéen a mënul xalaat ko xam nga dëgg dëgg lam doon wax sallallahu alayhi wa sallam rafetaay bi ñu yóbbaale. loolu bu amee wala ci nga am duñ leen bindaat dañu leen am ak nit bu ci nit ñi àndee buñ ci ànd mbir ñi nañ ko def daal di yabal ay nit ñu ñëw teg côté boobu yokk jàkka ji dugal ci biir armée keroog saxaaba yu bari dañoo yendoo jooy ba ngoon jot moom suur bi ñu damm mbaay ñax yore si sa salam ñoo bokk leen benn bu ci nekk ak bis bi bilaal bi ñu fiyaatee madina di noonu ñetti bis yii dañ koo jéendoo jooy comme ci la leen ci bi faatu alayhi salaam loolu bi ñu amee nag ñu la dugaay nag bi ñu ko dugalee ci biir jàkka ji fexe nañ ba defal ko loo xam ne xattal aar nit doona bi arme daa nga ci biir waaye dafay biir jàkka ji dara ànd ak loolu lépp na sax war ko war a nekk waaye nag ay barami xam-xam def ni galabu ala amrihim ñoo ko def defe naa kon masala moom bu ko tee leer moom yeneen jàkka ji ak bay jiw jàkkay bay jiw jàkkay noon jiw jàkkay ñoom jiw yéen a gën a xam jiw jiw yooyu benn ci gaaru ci siin jàkka ji moom mooy def xaraam nit ci jullee ko bu ko jullee te am ko li gën a dëgër ci wax borom xam-xam yi moo ko fay kon julleen bi yéen julli toog ci kaw ab armel wala julli jàkkaarloog armel wala julli ab armel nekk nit ci seen te daal ci gàttal ala kulli xaal mi ngi loolu moo tax gis leen borom sullamul musul borom Sullamul Wusuul al-Xaafis al-Xakami wax na wax ju am solo ci bunt bi téere bu am solo la ci bunt aqiida dafay wax ni wa man ala al-qabri silaajan aw qada képp koo xam ni dafa taal ab lamp ci bàmmeel aw istanaa aw istanaa ala dariixi masjidahe wala mu tabax ci kaw armeel ba ab jàkka fa innahu mujaddidun jihaara لسنة اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولا عن فاعله كما روى أهل السنة fekk fekk bàmmeel nga di ca taal ay lam wala nga fekk bàmmeel nga di ko tabax jàkka na nga yëg ni sunnay juif yi ak chrétien yi yàgg ya moom ngay sukkandiku di ko beetal nee na ñaata yoon yéen yàlla bi di ko tere alayhi salaatu wasalaam tey rëbb ñu koy def kon ñi nga xam ne ahlu sunna ñoom ñëpp solo nañ xadis yu mel noonu mu ni bal sax qad nara an irtifaa al qabri dafa tere ñu yëkkati bàmmeel bi wa an yuzaala fiihi fawqa sibri so lu toll nii sebre tëgg nee na bàmmeel bi moom la yëkkati ko yéen ci yàlla bi dafa waxoon Aliou man ngay kaay la yónni la ñu ne ko loolu yónni mu ne képp boo romb maasal desee boo romb essentiel bàmmeel bu taw ay maasal abina xëy yaay ñu ne Aliou daal dina yónni war ñu ne kaay ma yónni la te la ma yónni ci bi yónni la ma ne ko lan la mu waxaat ko ci sa bi mu dem defi loolu mu ne wa kullu qabrin mushrifin faqad amar bi an yusawwa hakada xalqaba bépp bàmmeel bu ñu gis ñu yëkkati ko ca kaw wala ñu tabax ko yëkkati nga jàngale moo leen ko baadal bal nag damaa gis wax bi fii maanaam seytan sañu koy lié mu ni même borom xam-xam bu koy daganal di ko daganal fa innahu yustataabu fa in lam yatub futil borom xam-xam bu waxee dagan na mais dañ ko war a tuubloo bu ñu ko tuubloo nañ war a tuub ñu lay ala kulli xaal masala moo defe naa moom leer na ñu naan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi